bindu yi ci list électorale yi commune bu Diama am ci taxawaay bu am solo loolee tax ci àllarba ji yamoo ko juróom-ñetti fan ci weeru septembre 2021 meeru gox boobule di El Hadj Oumar Sow di rafetlu taxawaay bi nga xamante ni autorité yi liggéeyandoo ak moom amal nañ ko ci mu yëkkati nag ay kàddu ngir dellu siwaat nag ci liggéey boobule. nit ñi ci gannaaw yëpp ay responsable lañu ci ay dëkk yu wuute lañu bokk liggéey bi nga xam moom lañu liggéey fan yi mu liggéey liggéey bu jaar yoon pour jàppale si élection locale yi nga xam ne dafay nekk le 23 janvier 2022 comme yàlla def na nag président may nañu possibilité pour nit ñi ñëw inscrire ku nekk wat fi nga bëgg nit ñi ñëw nañ à masse refas indi nañ nit ay masse inscrire nañu tey la jeex ñu woo leen nag pour féliciter leen ci liggéey bu rafet bi xam ne def nañ ko ndax man di fu mag ñoom ñoo ko def liggéey bi nekk na liggéey bu rafet képp ku bugg ñëw Escurie terewuñu may nañ ko yaatal dimbali nañu ko ñoom may nañ ko fu mu jaar insisté nañu ko pe li buggoon def na ko loolu mooy senegal mooy ku nekk buggee def daal ñu yombalal ko mu def li mu bëgg def képp ku ñëw Escurie xale yi Escurie nañu mag ñi Escurie nañu lu fi waroon am rek am na tey nag ñoom ñu ni moom man tam mu ni leen dem bu ma sañoon ñu sant leen gërëm leen ñu ngi may sant di gërëm mais xam na sant bi ci ñoom la di leen ni sama xol sedd na ci ñoom ànd bi ñu ànd yow jiital topp ci man bon nag man tam jiital naa leen topp la ci yenn jafe-jafe yi nga xamante ni am na ci yenn gox-gox yaat yi te mu jëm ci wàllu ñi nga xamante ne kenn nangulu leen yenn kayit yi moo xam muy certificat de résidence wala yu ni mel loolee nag commune bu jama moom mucc na ci ki nga xamante ne moom moo di El Hadj Oumar Sow delluwaat ci wàllu wi leeral ci te jàpp rek ni lépp loo xamante ne wareef la commune bi taxaw na ci bu baax. mais amul ben kay bi xam ne soxla nañ ko ci bir mairie jamati mu jafe kenn ku nek képp ku présenté nek ko citoyen war def sa droit li nga xam war ko def yombal nañu pour mu def ko te lool la borom réew mi foofu lool la santane te loolu mooy démocratie jël nañ te jamal bi nga xam ni nit du bëgg dal nga ko kay te da nga koy mu def ko ba mot bon nak lool nak liggéey bi nga xam ne ñoom def nañ ko kayit yi mot na fexe nañ ba joxon nañ nit ñi ñom ñoom ci seen bop fexné na bi nañ seen nit ñu ba inscrire moo tax ñu tey ñu doon gërëm di sant responsable ñoo fi taxaw koofi fi naa mu taxaw ñu tudd ko mbaa ñu tudd ko participer na def na ci loxam bi liggéey bi jaar nii li si li liggéey citoyen li mu war a def ñoom def nañ ko te ñamu àndal ci liggéey boobule ginnaaw parti bi mu bokk mu di APR ñu mën ci jàpp parti bu mel naka bii di PLD parti bu mel naka AFP waaye parti bu mel naka parti socialiste ak yeneen mouvement yu mel naka yan taxawu jama ak mouvement bu mel naka lii di gëm sa bopp loole nag El Hadj Sow dellu ci at ci bu baax te it di xamle ana lan moo leen boole ñoom ñooñee. mooy nekk seen kañ dañu ànd ak ci loola. ma ñu jiital ma doylu ma ba pare nag bay baywuñu ma ci ñu cee def liggéey def nañ ci liggéey bu am solo boo gisee li fi daje tey ci ay nit ci ay xeet bokkul ndax Sénégal nag li ay xeet bokkul lañu képp ku bugg a ànd ak réew am jàmm xeet bu nekk danga koy danga koy may cër bu ko yàlla may nga yëg ko ci cëram may ko cër may ko yitt bi nga xam ne bu ñëwee ci xam ni ñoom ñoo jiital bol tool boo nag man ñoom ñoom laa àndal xeet yi nga xam ni ñoo fi daje bu ngeen garab man maa ngi ni sol garab bu am ñu sol ay kaftaan am nañu sol ay Lagos sa mbokk séeréer sax ñu fi pour bëgg wax ni rek Sénégal lii mooy Sénégal Sénégal mooy doo doo doo kenn du manqué da wooy woo ñëpp ànd ak ñoom bon ñoom ñëpp ñu fi nekk xeeti fi nekk yëpp ñoo ngi ànd jëm ci élection yi 2023 liggéey bi nag doonoon liggéey bu yaatu boo xamante ni dafa nekk diirub mandat bi yëpp bilan bi nag nekk loo xamante ni engagé na leen kenn ku ci nekk ci ñoom te it nag ñu koy rafetlu loolee di kaddu ki nga xamante ni moom moo di adjoint maire bi di Mouhamadou Moustapha Diack. saa bu du fóot boppam. waaye yaakaar naa ni itam ñi fi teew tey wane nañ ni en tout cas am na lu ñu def mënuñu wax ni nag tuuti positif mais jàpp nañ lu bëri bëri bëri bëri bëri bëri am nañ ko. bu ma jëlee tey euh, par exemple fi nga xam ne fa laa yeewoo waruma sax particulariser comme je suis le premier adjoint man dama war généraliser mais nag y a un fait bu nga xam ne tey am na des investissements seront consentis à Bundum pour la construction pour construire un stade pour aller football di footballer di foyer. daañu tabax marché pour jigéen ñi tabax euh, logement ICP avec ak sage-femme daañu tabax ñaari classe pour euh, euh, également ay toilettes au niveau de de de de monsieur le maire s'est battu également pour que nous defal une route Bundum Ross de Bundum te day dem Ross ci Bundum jaari euh, j'ari jaari Warsul jaari Ronk war Rosso Sénégal continuer à bi que jëm jëm jama mais suñu ay la quand même il faut remercier le président de la République pour l'avoir fait mais il faut le remercier monsieur le maire parce que biñu biñu doga ñuy réunion ci travaux pont fleuve Sénégal mais dafa fekk may añ mu woma ni ne monsieur le maire mang lay wax lu neex mu ma ko lan mun ma dañu gudduro ne Ross ci Bundum ce jour-là dama tek sama sama sama sama sama kuddu parce que suur parce que c'est un calvaire calvaire la woon nous attendons maintenant le bitumage tay danaa am sharabi sama watolat mais quand même c'est un début assez intéressant parce que tay en tout cas Bundum lu mu taw taw xeyna problème ci dëkk bi la ne te fofu aussi duma ko bàyyi mu toog chaque fois que ma di ko woo jox ñu gasoil jëndal nañu sax ñaari moto pompe ah mais là c'est quand même quelque chose voilà kon lolo lu am solo la aussi réalisation yi ñuy def dans les autres zones kon même bu doyul c'est un pas très important nañuy ñaan yàlla mu suturaal ñu parce que les mënul sottendoo alkamalu lillah mhm. kooku moom loolu loolu moom xam ne yàlla rek moo mat mais doomi aadama matul mais sañ na jéego bu mu def mu positif mu sàq beneen pour mu positif yàlla nañ ci merci